noonu ma gis meneen malaaka mu am doole muy wàcce asamaan làmboo niir xontiim ko te xar kanamam mel ni jant te ay tànkam mel ni jumi safara yor na benn téere bu ndaw bu ñu ubbi mu teg tànku ndejooram ci géej gi tànku càmmoñam ci suuf si di xaacu mel ni gaynde guy yëmu naka la juróom ñaari dënnu yi di jib naka la juróom ñaari dënnu yi di jib may waaj bind waaye ma dégg baat bu jóge asamaan naan ma li juróom ñaari dënnu yi wax na nekk kumpa bu ko bind noonu malaaka ma gis mu taxaw ci géej gi ak suuf si yëkkati loxool ndejooram mu jëm asamaan daldi waat kiy dund ba faw ki sàkk asamaan si suuf si ak géej gi ak li ci nekk lépp mu ne néggandiku wees na waaye jamono ju juróom ñaareelu malaaka ma wole ci liitam ndogalu yàlla dina mat ni mu ko waxe woon ay jaamam yonent yi ci kaw loolu baat déggoon ca asamaan waxaat ak man ubbi ci loxoob malaaka mi taxaw ci géej gi ak suuf si ma dem ca malaaka ma laaj ko téere bu ndaw boobu mu ne ma jël ko te lekk ko dina wex ci sa biir waaye dina neex ni lem ci sa gémmiñ noonu ma jël téere bi ci loxoob malaaka mi daldi ko lekk mu neex ci sama gémmiñ ni lem waaye bi ma ko wannee mu wex xat ci sama biir ginnaaw loolu ñu ne ma faw nga wax ci kàddug yàlla lu jëm ci réew yu bari xeet yu bari kàllaama yu bari ak buur yu bari